faal yow rek la ñuy topp ku nanguwul ñun nangu nañ ku santulit ñun sant nañ ku dikkulit ñun dikki nañ ku gëmulit ñun ñoo ngi gëm ku réere ñun gindiku nañ ku teggi ñun dëgmal si nañ ku lay moyit ñun jublu nañ ku xamulit ñun ñoo ngi xam faal yow rek la ñuy topp